nuyoo bi sama kilifa muy sama papa Assane papa man lay ziar di ziar euh, suñu jawrin muy cuun ma koy ziar aussi euh, di nuyu bu baax Safane Pedra di nuyu képp ki nga xam ne aussi teew na fi a ñi ma bokkal plateau bi yëpp leen wax ne jot amul lu xat mais lii day wane juste yëpp bi nga xam ne am ngeen ko ci man donc maa ngi leen di jaajëfal bu baax donc ni ko xamee rek def dara moom. Euh, je pense que ça fait partie de label yu njëkk fii ci ci Sénégal donc mu nekkoon benn bërëb boo xam ne euh, certes musique moo ñu fa boole woon mais c' était au delà de aspect musical bi parce que ay ay ay ay vibes yu bëri ñoo fa daje woon ay ondes yu bëri yoo xam ne ku su nekk dafa nekk ci benn mondam mu nekkoon mun naa wax daara boo xam ne euh, euh, aspect musique bi peut être moo ñu fa lié woon mais am na beneen affaire bu gënoon fort loolu boo xam ne moo ñu lié woon boo xoolee jotaay bi da ko si gis. donc mu jotoon nag def ay réalisation yu bëri yoo xam ne defoon nañ ko donc je pense que premier album kër gi yu bëri xamuñu woon dafa lañ tàmbalee liggéey bi après lañ ko eggalee maam xaa fa la jaar njaaya jaar na fa euh, mil mil ka jaar na fa bril fight foo mun fa woon donc bëri na quoi donc je dis juste continuité rek la la woon quoi mooy li may li ma doon faral wax naan def def dara nuva daa def dara du mës a dee parce que def dara dëgg la te dëgg moom du mës a dee donc mun nañu wax ne lii euh, suite logique li ñu tàmbale woon la jamono tënkuñu ba ñu xawoon tukki demoon uti leneen parce que tukki mun nañu wax ne mooy doxi maxaama parce que da ngay dem ci benn dëkk boo xam ne da fay fekk ñeneen ñuy xalaatee neneen di defee neneen donc loolu dolleeku la donc dolleeku boobu nag la ñu ñëw pour partager ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ñu continuer woon doon liggéey liggéey bi ñu ci jamono jël ak ñeneen ñu bees ñoo xam ne seen liggéey moo leen tóoj ba à ce man ma repérer leen ba boole leen ci biir projet bi si tënk mun nañu wax def dara c'est un peu alors instauré wu voyage et le soir gis ne bëri na ay jeunes artistes yu nekk bëri na ay artistes yu nekk et puis population en voie de moins en moins tey lan mooy idéologie de départ bi nga xamante ne bon wala nga def projet de compilation aussi boole benn artiste yoo xamante ne déjà il n'arrive pas à une zone parce que bu dee ne artiste yi nekk dans les dans les opérations bëri na ay jeunes comme l'heure. Mm-hmm. C'est quoi l'idéologie justement bi à la base c'était juste essayer de wane beneen casquette bi Gaston soloon que ñu bëri xamuñu ko muy casquette bu producteur boo xam ne day defar ay musique parce que Gaston fi ko ñëpp xamee mooy rap kese donc ñu bëri xamuñu woon ne peut-être sama album yu bëri musique yi man maa ko doon defar donc idée à la base bi loolu la woon j'avais envie de wane Gaston Gaston Gaston si beneen beneen beneen beneen beneen casquette en tant que beatmaker lii de c'était ça donc si sama néeg laa nekkoon defar ay musique defar ay musique defar ay musique musique yu bëri nañ et j'avais envie de le partager ak nouvelle génération bi nga xam ne man su ma leen gis ñuy bind wala ñuy rap man sama damay gis sama sama bopp si ñoom man maa fexe ba repéré gis benn sangam partagé ko ku mel ni BMT aussi pareil mu nekk boo xam ne daanaan la ak ndóbin bi nga xam ne yàgg naa wax ci moom te fekk ne xamante wuñ ko donc idée de base bi loolu la woon quoi loolu la woon mais aussi. moi je me dis ñun suñu génération euh, population dafa am lu lu am solo lu ci ci mouvement bi man ci produit population ci population la génnee euh, Fata produit population la donc euh, population mun nañu wax ne tremplin boo xam ne artistes nouveau talent yi nga xam ne ñu ci underground bi te amuñu chance u fa la ñuy jaaree pour nit ñu xam leen donc kon ñun amoon nañu suñu dekkil rap je me suis dit pourquoi génération bi aussi ñu am seen defati talent donc ñaari idées yooyu si la ñoo ñooy li nga xam ne ñoo sabab. projet bi ñu wax. juste une dernière question avant que je passe au groupe. Euh, c'est une opération de diversité de neuf artistes. Est-ce que c'était facile de faire cette production qui sont pris dans les projets, il y a une hypothèque qui se Est-ce temps ça a fallu justement pour cette réalisation? Bon, ce projet ça m'a pris deux ans quand même. Mais je me dis que euh, c'était facile, c'était pas facile dans la mesure où li ëpp solo mooy nit ñi. nit ñi boo leen amee rek am nga lépp te pratiquement ñu nekk ci projet bi yëpp avec toute modestie képp ku ma fi woo daf may wax man honneur la nga bokk ci sa projet parce que man ba may commencé musique ci say texte laa doon bind ba may jàngi école pratiquement ñu si ëpp et la preuve pratiquement kenn ñu si nekk ñëpp kenn du jaar sama tur ñii baa ñorin lañ may woowee ñii lagent lañ may woowee donc loolu jàngale la buy wane ne am am dëgg du xaalis am am dëgg mooy nit ñi et toll nii euh, vingt neuf titres mu ngi soo a am ci histoire rap Galsen bu génn si quatre volumes am na fi ay structures yu fi nekk di jot ay financement yoo xam ne moom jotuma ko te bu ñu bëggoon def lii du ko def donc loolu aussi nit ñi war nañ ci jàng war nañ ci jàng mooy aspect loolu nit ñi war nañ ci jàng mooy aspect aspect euh, tour bi c'est bien aspect siiw bi c'est bien mais loolu yëpp benn phase la rek mais loolu dafa am loo xam ne moo ko ëpp doole mooy aspect nit bi jii ñu bëri ñu fi ñëw am na si ñoo xam ne sama rab intéressé wu leen peut-être aspect nité bi nga xam ne moom laay dund ak ñoom loolu moo leen fi indi je pense que man j'ai toujours musuma yëg sama succès musuma yëg sama succès ñu bëri loolu lañ may critiquer sax yu da nga faale ba mu ëpp mais je me dis loolu moom mooy sama force et la preuve loolu moo tey moo jur lii di ko. bon je pense que concert présentation bi damay bàyyi gars yi déjà ñi nga xam ne inter nga xam ne ñu ngi ci biir bi ku mel ni Simon nga xam ne bu ko xam xam ne ma ak moom suñu ànd ànd bu yàgg la certes musique moo ñu boole mais dem na ba famille dugg fi ba leneen dugg fi donc tout mu ñëw nekk sama wet donc c'est significatif Jamal aussi kon ni ma la ko waxee woon rek moom ba ñuy soog a samp def dara depuis njëlbeen bi mu jógee Casamance ñëw fii di jàng di jaabante université ak studio ba il était là Euh, kii aussi moom nga xam ne man dama ko dama ko dama ko rakkoo parce que euh, bi ñu xamante diir bu néew la mais damay gis euh, aspect bu doy waar quoi mu nekk ndaw boo xam ne bu ñuy wax ci wàllum écriture ak wàllum rap cest à que mu ngi ci kaw a kaw la preuve ren moom moo jël meilleur album moo jël meilleur lyriciste mais li ma ko gën a nawee muy premier jour bu ma ñëwee këram li ma ko fekk muy dundee ay parents aspect boobu laa ko gën ci laa ko gën parce que man loolu laa jàppe nit quoi parce que rab lu ma jaaxal kenn mënul bind ba bind lu ma jaaxal man ku ma naw rek jikko laa la nawee ak koyof loolu laa ko jàppee donc moom aussi mu wax lu tax mu bokk ci album bi ak ñoom ñi ñëpp ko si sa ante aussi pareil moom dafa am lu ñu bokk lu doy waar mooy sa à dire que kon ni ma la ko waxee rek man nit laa jàppee doomu aadama musique moo ñu boole mais tey jii sama turandoo moom ki benn animateur bu ma tuddee benn leer benn benn leer laay wax moom moo ko yar si bu nekkee xale ba tey ji mu am benn affaire bu fort aussi bu ñu liyee boo xam ne ça n'a rien à voir avec le rap donc du ñi fi toog ku si nekk toogaayam daf fi am lu fi représenté même yow sax démb la woo je pense que du saayir parce que maa ngi fàttaliku ba ngay soo ko commencé livre bi nga doon bind ñëwoon def dara boobu jamonoy jamonoy jamonoy jamonoy pen dabe début yi donc du saayir aussi nga ñëw fii donc ñu bàyyi gars yi kenn ku si nekk tàbbal kaddu après bu ko defee ñu ñu wéyalee bu ko defee après programme bu concert def yooyu à la fin ñu ñu ñu yàlla ci quoi. yes. Euh, sinon bii euh, comme ça première bi mooy déjà sa euh, avis déjà par rapport à ces compilations que le gouvernement a prises mais aussi nga am nga def si benn son bu tudd rapide et tey pour ñu ne ñu nga ko jël pour que les gens waaw euh, salaamaaleykum à tous ñu ngi nuyu ñëpp tàmbale ko ci père ñu ziar bu wér ak suñu coow yi aussi ñu lay nuyu bu baax di nuyu assistance bi yëpp journaliste yi artistes yi yëpp ni ko waxee ah Simon c'est un artiste de la nouvelle nouvelle génération bëgg ñoo wane ne perte bi bëgg ñoo wane ne booy yi ñu ngi jéem a gàllankoor di yóbbu ba fekk waaye des na ay galaju donc euh, non question bañ sax mais question wane ne on est là quoi tu vois et li ñu mën a wax ci rab bi gën mooy comme ni ñu ko waxee ci taxi rab bi nga xam ne mooy indi thématique rab buy wax Macky na libéré détenu politique yi rab buy. muy muy ñaax ndaw ñi ñu gëm seen bopp avancé jëm kanam rab bi nga xam ne tey day wax ci manifestant ñu rey Kédougou te kenn du leen tudd rab bi nga xam ne day wax ne hip hop du diine rab bi nga xam ne et cetera comme on l'a dit dans le texte et contentement bi ci am mooy defe naa waxoon nañ ko Gaston mooy non seulement ñëw nañu ci compil mais feeñ nañu quoi on n'a pas été noyé et je crois que li gënoon yomb mooy ñu noyé parce que suñuy premier single mu génn quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-huit ak tey ça fait presque vingt-cinq ans vingt-six ans tu vois tey am na ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi ci compilation bi il y a vingt-six ans ils avaient deux ans ils avaient trois ans mais tey ba tey en vingt-six ans nga mën a rap ñu lay woo di la féliciter euh, je crois que si sama génération dañ leen di compter tu vois et loolu la ñu woon indi ci compil bi parce que compil bu am niveau la tout ce que ngay dégg ci biir euh, texte yi sound yi da xam ne lii seen compil bu am niveau et niveau bi tamit il faut féliciter Baye Diowin non seulement niveau bi ci texte mais niveau bi ci production yi man ay nit ñi xam ne gëjoon naa leen dégg mais dañ may woo di ma wax ci biti di ma wax ci produit. lépp Gaston moo jox nit tu vois pour wane le level le temps qu'il a pris ak tamit le choix qu'il a fait pour que les gens puissent poser seen problème je crois que c'est important artiste de la nouvelle génération la ñëw buuxante wa voilà alors notamment dafay si ak Pape ay Paa ay mère ñu ay Paa la ñu ñun booy booy ñun booy booy ñun booy. booy ñun dañuy dañuy trap booy dañuy trap ñii rap bu yàgg ba ba tey bis si mel ni tey tey ñun dañoo fi teel teel loolu la ñuy def du ñu ëpp tey léegi xam nga da ngay ñëw di xam nga di coppi coppi c'est pas donné à tout le monde mais ñoom Pape nga ñëw di coppi ay Pape lañu ay Pape mais rek sa sax rek sa sax ci nouvelle génération bi la bokk parce que moom moom du ko bàyyi ko. Euh, euh, euh, du rôle de l'organisation des pays, c'est la conférence de presse, mais aussi donner l'information par rapport aux conseils de présentation. Waaw, comme ni ko waxee, le concert de présentation CC2, c'est du live, <laughs> c'est pas du playback, na leer lu ñëw pour playback tool si que tu vois c'est du live and di parce que artiste tamit da ngay wane ne artiste la da ngay da ngay wane ne affaire bi du dañuy bës benn play rek benn bouton ñu bàyyi sound bi di daw donc il de la qualité comme on dit ku euh, gis ay ñoom Papoche ay ñoom Lobin ay Bakas Toofi ay ñoom Anta ay DMJ euh, Mamel Jaman yaa ngi gis ay ñoom ay ñoom euh, Meuse fële tu vois donc da ngay xam on prépare on prépare quelque chose on prépare quelque chose de lourd et que il faut que gars yi ñoom teewee ko et y aura du show il y aura du spectacle. et c'est pas forcément li nekk ci compil bi ngay ñëw déggal parce que dina am ay mix dina am ay bit yu changé dina am dina am dina am donc pour euh, joxe avant vous et wax gars yi ñu ñëw y aura du live ça sera chaud et caaxaan taxu kaa jóg exactement. Merci beaucoup Simon. Merci. Merci. Euh, Alors, bien, euh, comme vous connaissez ainsi, en fait, je suis en partie de la préparation. Et le pays, à travers ce, ce projet de déclaration, d'abord, ce projet de l'année, à sa rencontre, différentes actions de la population Peut-être, euh, la chasseur, mais de un peu le terrain. Et il suffit que le volet 29 artistes de la population déjà. Avant de continuer de gagner à travers cette population, le public de l'autre, c'est pas déjà pouvoir justement partager cette compétence avec les alors ngi sama mbokk yi sama gars maa ngi leen di ziar bu wér a ñi fi nekk ñëpp bàyyi jaww ji ñëpp damay wax ne doon woon yoon sax may jël kàddu si affaire yu mel nii quoi parce que xam nga nekk nii mën nañ ma kilifa quoi mais bon li wax rek mooy comme ni ñu ko waxee woon ñun ñëpp ah foog naa comme ñun ñëpp ñu si ñun quoi comme ni ñu ko waxee si si si commencement bi du moins ñëpp dañu doon déglu li nga xamante ne moo fi gënoon ba quoi te garçon boo xam ne c'est fi gënoon baax quoi tu vois donc honneur lay nekk pour moom moo ñëw ba si ñun dañu dama bëgg ngeen defal ma nangam ak nangam xam yaa ngi wax ne compilation bi regroupé na vingt-neuf ñun ñëpp ñu nekk si je pense que kenn ku nekk si ñun sa morom artiste nekkul woon sa problème quoi mais bàyyi di ngeen bi ngay defar sama moo gënoon nekk sa problème tu parce que xam nga ñun ñëpp dañoo màgg si loolu noonu quoi dañoo màgg si déglu ay Simon màgg di déglu say Alioune si xam nga di déglu li nga xamante ne moo fi gën a baax donc suñu waree ñëw def li nga xamante ne nii la loolu si ñoom donc loolu fierté lay nekk si ñun quoi xam nga di wax ne ñun tamit on est très fier de porter ce projet de lu tribunal dellu tribunal d'abord j'avais le choix pour def yeneen affaire parce que am nañu ay affaires yoo xamante ne liggéey nañ si yu bëri man ak moom quoi j'avais le choix nga xam nga bit bi ak nu mu naay see noonu xam nga ma ne bàyyi ma bàyyi ma kii rek ma jaayoo ci rek xam nga <laughs> bàyyi ma jaayoo ci rek quoi comme sama mbokk rappeur yi ni ñu koy defee xam nga yaa ma gën a xam j'aurais bien aimé mu nekk loo xamante ne nii rek xam nga mën nañ toog détaillé si thématique bi affaire yooyu parce que man affaire yooyu bëgg naa ko quoi mm-hmm. mais dama choisir def égo trip si son bi quoi te tey waaw comme ñëw live rek saa yi ñuy menacé daal foog nañ mënuñu live mën a xaw ma playback ñëw live maa bëggante ko ak ñoom ah bëggal nag suñu génération la bëgg bokk nag ñu ñuy menacé saa ba léegi mais gars ñu ngi koy dégg ah. saa ñu ngi koy ah. ñu la ñu la bëgg xëccoo quoi. Bakar Bakar old school la de bon ñëw ñëw ñëw live si ah, ñëw live si ñëw live si ñëw def live xam nga show xam nga gën a jëmal projet bi quoi incha allah. macha allah merci beaucoup. j'ai gardé le meilleur pour la fin. Merci Aliou Ngoye ñu ngi wax asalaamaaleykum ziar ñëpp di bëgg ñëpp di nuyu suñu kilifa yi alhamdulilah waaw comme ni ko waxee rek euh, ku xam Baye Diorin xam ni kilifa la man dama ne xam na kaaf bi si kilifa moo tax mu doon kilifa amaan na am na ñoo xam ne ñuy woote ay kilifa suñu woote woon kenn du leen wuyu si kon moom du ma def lu dul di ko sant bu baax a baax di wax li ma dugal si compilation bi euh, comme niñ ko waxee woon bee passé rek du ma nee sax dama si war a bokk par force mais man xam naa ni même su si bokkuloon maa ngi si biir parce que soo xoolee Sénégal bi ginnaaw raay la tourné woon vidéo bi war na def douze ans suma juumul ba mu koy tourné ñëw na ba suñu kër te suñu buntu kër c'est presque fa la ko kon su ma demee ba war a ñëwaat def Sénégal bi suuf damay ne yàlla euh, li li mu tuddoon moo am rek loolu rek laay wax di wax ni man si kontaan le fait que ma bokk si di wax ni Sénégal bi suuf ñëpp xam nañ donte bàyyi kenn mënu ko dab mais dañuy jéem fu mu tegoon tànkam ñu jéem fa teg suñu tànk loolu rek ak waaw soo xoolee Sénégal bi suuf baay ba mu ko defee def na douze ans léegi soo ko tegee day mel ni tay la ba tey man ma ñëwaat am lu ma si njàmbaas rek comme la ñuy wax njàmbaas yokku sel waaw ma yàqul sel mais soo xoolee Sénégal li muy dund moment bii nii wax si Baye wax si keneen ak keneen wax si ku dul artiste wala xale bu juddu tey sax soo ko newoon kaay waxal ma si Sénégal mu bindal la lu bàyyi raw bindoon wala lu raw lu bàyyi waxoon kon du ñu def lu dul rek di wax que ni Sénégal bi suuf li ñuy dund la ñun ñëpp ba président mu nangu sax wala mu bañ a nangu ñun liñ si wax moom mu ko doon kon li si li si li si nekk li nga xam ne nii lu particulier la rek mooy que dañuy am loo xam ne néew ñu dañ ko doon nëpp nëppal mais dañu wokk fi nga xam ne moo doon xasan Sénégal amaan na am na ñoo xam ne sax suñu dëkk xamuñu ni am na ñuy dund lii wala am na ñuy métti dund métti bii nii wala am na ñoo xam ne kat ah kon ñii seen dëkkuwaay nii la mel loolu lañu ñëw pour wan ko askan surtout dem seetaane ko le deux incha allah place des cultures yow. Akadjama Akadjama. merci maman. ngi lay e jaajëfal euh, di la ziar di ziaraale tamit yëpp ñi nga xamante ni vraiment def nañu déplacement bi tey di leen wax jërëjëf ci seen parce que les temps sont durs il n'est pas évident de rallier un point A à un point B au Sénégal aujourd'hui avec facilité ñu ñëpp xam nañ def di wax salaamaaleykum à tous ceux qui là di jiital na bi ci suñu pàpp suñu ay nijaay ci suñu ay jëwriñ ci artistes yi nga xamante ni vraiment ñoom ñëpp ñëw nañu woon baay jëwriñ bi vraiment ñu la yëg nañu te am nañu li nga xamante ni ci yow euh, amaana jàngat bu mag ci biir je commencerai mon propos d'abord par euh, un message de soutien à l'endroit d'un frère ou deux frères, je vais dire au pluriel, ñi nga xamante ni tey jii dans les geôles du Sénégal les prisons yi nga xamante ni ñëpp xam les conditions carcérales au Sénégal sont difficiles notre frère Nitdoff notre frère Karim Xrum et bien d'autres Sénégalais yi nga xamante ni peut-être euh, euh, certains ont commis des fautes et d'autres peut-être n'ont rien fait, mais ñu témoigner notre soutien à l'emploi en tout cas de cette di wax ni moi c'est toujours un et une très grande fierté waaye am pour wax ci Pathé c'est avec toujours émotion que je parle de c'est quelqu'un qui est humain humain nité da nga koy jàngat ci waa ji ñu dañu dundal moom démb ñu def tey nag dafa defaat date pour montrer sa solidarité et témoigner de cette générosité bi nga xamante ne moo ko doon dundal ñu dem ci këram ci këram mu yaatal ñëpp njaboote ñëpp di dundal ñun li nga xamante ne amaana nit mën na ko dundal moroomam mu am kattan bi am mën-mën bi mais dina naju wala mu am ci biiram li nga xamante ne da koy téye ko def sa waay wàcce boppam kamal wàcce boppam suufeel boppam il est à l'époque il fut je vais dire reste il restera à jamais un artiste qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du rap sénégalais seulement kii man damay am fierté pour wax ci moom parce que am sax courage teg soog sama papa sama yaay toog sama nijaay toog saa di daw ñu koy dégg message bu yëg muy wax dëgg muy wax dëgg di wax lu baax di wax lu jëriñ musique loolu lañ ko xamee ñun <laughs> man Simon bu démb laa gis bu tey te moom laa gis gis ko bi laa yor Simon dëggantaan daal xakasam li ma bëgg a wax foofu rek mooy Gaston c'est quelqu'un qui a toujours aimé partage et ce projet defati dara c'est un projet qui incarne cet esprit de partage qui artiste artiste dans l'âme artiste dañ koy doon ci ruu du ci du ci jëmbu du ci meloo du ci dara amaana loolu après lu ko fekk si ko mais ak si biir la koy doon da ngay da ngay am vraiment amu partage am am bi nga xamante ne yow boo gisee talent talent wala nga gis fii fii war naa fi mën a def ceebo bii parce que yàlla may na ma ko doo hésité pour def ko je pense que ce projet même si cela a duré deux ans man je suis sûr que deux ans yooyu noonu garçon c'est e un e qui est passé très vite parce qu'il ne l'a même pas Ni le doon defee ak ñun aujourd'hui il montre cette nouvelle casquette de producteur producteur musical mais c'est une casquette que je lui parce que a participé à mon premier album mu composé si ay beat te moo ko ci jëme boppam ci ay album yu mu jëkkoon a génnee sax am na ñi nga xamante ni moo ko jëkkoon a liggéey amaana nag il n'a pas revendiqué la de ces sons qu'il a et composés. L'autre chose que j'aimerais dire pour terminer, parce que j'ai été un peu long, la question, je vais y revenir, Buntu Aduna, c'est le son qu'on fait ci biir projet Buntu Aduna nag bu ñu ko waxee fii c'est la métaphore de la naissance la métaphore de la naissance mooy juddu buntu bi ngay jaar koy gane mooy yaayu booy sa buntu yaay. buntu boobu nag je pense que ñun def lenn lu dul gërëm suñu ay yaay di leen wax jërëjëf saa su ndax suñu yaay soxla nañu ci suñu éducation pour nous transmettre les valeurs yi nga xamante ne ñoom la suñu ay maam ak suñu ay euh, société dëggantaan baaxoo suñu cosaanu société parce que je vois un rap nga xamante ni ça parle au Sénégal dama gis ci biir projet ay son yi nga xamante ni man namoon naa ko le hip hop aujourd'hui souvent il faut l'avouer que cette population est comme un nouveau souffle c'est un sang neuf que ça apporte à notre pays lamboo nañu te moom moom moom nañu hip nga xamante ni vraiment message moo ko jóg hip hop bi nga xamante ni dafay tekkalaale hip hop bi nga xamante ne dafay jàngale te ñii ñii ñun loolu la ñu mérité si ñoom ba ñu am vraiment courage ñoo béyee micro pour di ci wax nit ñi di ñu dégg ñu war a béyee ñu message donc c' est avec un très grand honneur qu'on a partagé à ce projet et le son FKA c' est tout le soir je vais pas peut-être citer tous les artistes peut-être que dina am ñu ma échappé mais maa ngi ci biir Meusa ngi ci biir rescapé mi ngi ci biir bu kàmbu kàmbu mi bril fight for mi ngi ci biir bu ndiga duru bu Tambacounda mi ngi ci Mario Keke et ci biir ça c'est des artistes yi nga xamante ni euh, euh, hier à Deftan on avait vécu quelque chose d'extraordinaire et aujourd'hui avec le projet Defati Dara Gaston est allé diriger ces gens

lii culture Sénégal ak histoire du podcast projet bi daf ci bokk à jamais moom n'est pas connu ce n'est pas connu dans l'histoire une compilation aussi pointue et aussi je vais dire euh, ouverte en matière de sélection des artistes de sélection bi dafa laaj garçon dafa laaj ci dafa laaj ci ñu tey mu laal ci bulletin bi mu laal ci bidal bi su ma jarul ngay xool di xool génération yow fu la nekk taxaw ndax Gaston laal na ñëpp parce que sëñ Ba kon projet bi man chaîne bi en tout cas les artistes d'abord à se procurer waaye parce que man je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui ñun boobu c'est suñu musique bi à proprement parler demul mu waree c'est parce qu'on ne se soutient pas suffisamment ñu ngi def nag ay artistes yi ñu ngi sukkandirante ñu ngi defalante et tout mais bu doon def képp ku génne projet ak si yëpp def jéego xool nañ ci participer en achetant le projet ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire ñu koy très grande merci. Merci pour les journalistes, euh, nos communes partenaires. Euh, je ne serai pas long. Euh, Gaston, notre première collaboration, je pense en 2002. où j'ai proposé ce on fait comme ça. Euh, et après, il a participé à une compilation en retour qui m'a servi à aller étudier en France. Parce qu'arrivé moment, y avait, à l'époque, il n'y de subvention, il n'y avait de bourse. Donc il fallait trouver une idée pour partir. Donc tous mes que ce soit Gibson, Gaston et autres, ils ont contribué à cette compilation qui m'a permis, que les ventes m'ont permis d'aller étudier en France pour augmenter ma connaissance. Après, on a travaillé sur le plus gros projet qui est Dakar Star, où il fait partie des territoires à Kétino et les territoires artistiques. et moi, c'est une histoire de 25 ans. Euh, tous que j'ai côtoyés, c'est le plus têtu. Quand il a un projet, projet évidemment, nous sommes une heure du matin c'est quelqu'un que j'aime. On a presque le même caractère. Quand on se fixe des objectifs, on fait tout pour atteindre les objectifs. Donc, c'est pourquoi chaque fois sur tous les produits, sur ma am projet je suis en train de faire une production sur moi presque moom mooy def di di di liggéey si Refrain Yaakaar ci ce que moi je lui dis tout mal que je peux lui souhaiter c'est le grand de sa vie pour le tout continue à développer autre chose parce que on lui a donné aujourd'hui aussi il redonne le doctorat félicitations et j'en profite aussi pour pour saluer son papa qui est là depuis cinq ans il est à Londres il accompagne Donc, je dis rendez-vous samedi, le 2, à la place euh, des cultures urbaines à HLM Padois. Euh, donc, il y aura du son, il y aura de la lumière, et je souhaite aux artistes aussi d'être à la portée pour que la fête soit belle. Merci. Merci beaucoup, Papa. Grave, Ziara. Et Gasso, euh, aujourd'hui, j'avais une partie qui n'était pas bien. C'est ça. Alors, d'accord, je vais dire. D'accord. Parce que vous voulez le voir. <laughs> C'est mais ça peut inclure des dialyse parce que mooy vraiment félicitations. on sait que c'est pas évident ñu fàttali ko ñu ngi leen di jéem a créé affaire bi ko jéem a teg ñu nekk xam nga ni difficulté yi dafa métti ko d'autant plus que le nekk outside pour que gars yi jàppale xam nga bagage yi pour nga projet gars yi dafay dara donc cër bi ñu am am ko woon wala am ko woon ci kaw moo ñu jox cër boobu ba ñuy déglu ñu boole ci lépp ñu boole ci fépp ñu teew fépp loolu loolu war nañu ko sàggal alalu lenn la bu koy wax la daa am moo ko war a dégg man ku ci mel man nga xam ne caare laa juddoo yaroo ko man sama avenir lenn rek lañ mën ci assuré loolu mooy ma nekk benn bien sax dañ agressé boobu amul leneen lu doon xaar bu ñu si ci laaj bi ëpp loolu mais il faut moo ñu permettre jël bi ñu am ñu en cause suñu biir ay kër suñu biir quartier suñu biir dëkk ak suñu biir continent am ko ci àdduna il faut boobu ñu jox loolu dañ ko war a fonk parce que am na yeneen jeunes yu nekk ci situation yi ñu nekkoon yu difficile yu nekk yooyu nga xam ne tey amul benn issue bu ñu am wala ñu mën a jaar ci kooku edificação bíblica. Ele disse morrer. Ele disse trabalhar. Ele não tem uma pedoqueca. Ele disse morrer. Foi muito bem. Foi muito bom. Me consulta. Me coçava. Pastor, é um pouco que patrimônio generoso Senegal. Je ne veux pas dire que je suis un exemple de Dieu. Non, la paix, je ne veux pas dire que c'est un problème et multimilliardaire. Alors, nous avons une fierté, une ressource. bi ko sosee bu dee amul woon si génération bi dafay ay mu ay millions bu ñu nekkul mooy ñu ñu def baaxul vraiment échec mais alhamdulilah yàlla ñu ngi sukkandiku hip hop bi parce que garçon bi parce que simon bi parce que fata bi parce que rex bi parce que parce que parce que am na ñu fi nekk teew dañu leen wax ne gën a soutenir mu wax parce que bu ñu waxee plus de trois mille milliards xaw ma ñaata rappeur ay millions de rappeurs yuy dund ci bopp Sénégal benn projet war ci jéem di ko produire te am problème ay bor wala ci jël dépassé bu ñu leen wax dëgg la ay bopp la ñuy dund moom la ñu gën projet bu jël bopp la bu nekk dafa war jaayee bi jël ko bu ñu jaayee bi jël ko bopp la ci jël bu ñu ci produire ci jël ay loolu mooy suñu sigi waa nga tekki dara ci kaw bi nag mën na ko ñun ñu ci nekk ci biir am xaw càppale parce que si très important des na ay combat des na lu bëri lu ñu war a def am na lu bëri ñu raw ñun am na ñu raw ñu ñu raw dafa bëri day ngay war a def parce que loolu la ñuy sant sax ñu des ginnaaw dañu war a def ñu nekk ci kanam tolloo ñoom ñu yëg ñu yëg ko ñu dem ñu def ñu am ñu am vraiment merci merci li nga def sa wàllu bëri dama lay encouragé di la féliciter encore une fois c' est pas facile mais voilà le combat continue. merci merci. kontaan aussi ñoom ñoom sama teewaale si présentation avec délégation wala wala affaire bi ils sont les sources. li nga gën a bëgg. si loolu lay nekk mooy sa laay lu ñu borom kër lañ ñoom dañuy soxla day jox bon nag ah ñoom pas plus tu vois mais suñu njaboot yi sax suñu parents yi mën nañuy xool comme ñu ñàkk xale wala xool ñu comme ñu bëgg affaire xale ba rek alors que en vérité dans le fond c'est la passion passion boobu nag ñu ngi ko wuñu ko dañ ñëw fekk fekk ko fi mais aussi pour jéem a jox xale âge ko te loolu mooy suñu warugar su ma gisee bu nekkoon si yow doo ko def ñun ñëpp ñu nekk ci mouvement bi ba léegi ku nekk sa kër sa soxna xam nga yaa ngi am yooyu dégg yoo xam ne bu la neex si kër yeeg mais si yow yaa ngi jàpp parce que donc mu ngi lay jëlee ak mu ngi lay yóbbuwaat ci société bi moo la wan nii moo la jot taxawaay yow donc euh, boo amee volonté def lu mel nii li nga loolu yi gars yi jëndee àdduna am na solo trop trop trop jëndee àdduna am ko ñun su ko jëlee nañ jàppale bu baax a baax di koy def ak di koy defal parce que su nekk na benn boo xam ne nii boo xoolee yow mën nga déglu yenn galère yi mais ñi koy defal loolu ku nekk day yéen da ngay xool comme quoi encaissé nga suñu bëri di am comprends nga alors que du début jusqu'à la fin ay galère ci production bi ci live band bi ci orchestre bi ci you know lépp ci bis bi ay dépense la te ki ngay def ba nga xam ne moo ci soñ bu bis jotee ba affaire bi am succès ñu nekk ci biir ñëpp dañuy jàpp ne nga ñu si dara dara jàpp suuf quoi tu vois alors que volonté dëgg mooy def si jamono bi fi toll si gars yi jëndatu nga tax volonté kenn defatul dara pour ñu ne ak nga ay fan rek naa la nga nice nice nice mais ñu ne déggee baax mais comme ñu ko lañ léegi dépassé nañu yooyu succès ñàkk succès yooyu dépassé nañu donc yàlla yàlla def suñu ñu dëgëral ñu bu baax a baax a baax ñu ñëpp nag xam nga affaire yëpp benn la dénominateur commun bi mooy euh, euh, je m'appelle euh, Gaston euh, Bamar Ndoye. Je suis un artiste, rappeur, auteur, compositeur, Je suis aussi le directeur du label Def Dara qui a produit cette compilation. Là, on est. Bon. Aujourd'hui, on, euh, on, est, on est là pour parler de la compilation des Fatidara. C'est une compilation que moi j'ai produite. de 29 titres euh, où euh, les musiques qui dans cette compilation, c'est moi qui les, a, qui que le mais là, je viens en le producteur. Donc aujourd'hui, on était là pour essayer de parler un euh, comment on a, on a, on et essayer de de, de cet album et parler aussi du concert, du grand concert du 2 décembre euh, qu'on pour pouvoir présenter cet, cet, cet comme je le disais tantôt, euh, dans, dans, cette compilation, a 29 Bon, les critères de sélection, c'est euh, qui connaît Gaston connaît que c'est, il fait partie des, euh, des, des, des, plus grands lyricistes avec toute modestie dans ce pays. Donc les critères, je me suis basé sur les artistes, sur qui ont le verbe surtout. Parce que quand on parle de rap, sans poésie, euh, c'est pas du rap. Donc les critères, moi mes critères perso, c'était les artistes qui ont, qui, qui ont le verbe. Je me basais pas sur la popularité, je me basais pas si tu avais des millions de vues, non. Je me les artistes qui ont Mm-hmm. nombre 29 c'est du hasard. Le nombre 29 c'est du hasard. Ça pouvait être 15, ça pouvait être 30. Euh, on n'a pas attendu tout ce temps parce que def a, a, eu à réaliser, je peux dire, plus de, plus ou euh, albums qu'on a, qu dans le premier album de Kergui. Ils ont commencé euh, dans mon label. l'album de, Jamal. C'est dans mon album, mon deuxième album qui a gagné le meilleur album en 2007. C'était Defdara. Mon troisième album qui a remporté le prix du meilleur album aussi en 2011, c'était Defdara. Mon quatrième album qui a remporté meilleur lyriciste en 2016, c'était Defdara. Et mon tout dernier album, cinquième album qui s'appelle Vécu, qui est sorti en et qui a remporté le prix du meilleur lyriciste, meilleur album aussi, c'était du Defdara. Et quel est l'objectif quel est l'objectif visé dans cet album Quel est l'objectif visé dans c'était juste, nous, quand on était en bas, il y avait des grands qui nous ont donné la main. Et nous, on a juste tendu aussi la main à des jeunes qui, qui ont, qui ont plein de talent. On a essayé juste de les faire euh, connaître. C'était juste l'objectif.

Maintenant, peut-être euh, là, c'est sur cette, sur cette compilation, j'ai voulu plus mettre l'accent euh, le, sur, sur euh, le 2 décembre, comme je vous disais tantôt, c'est euh, c'est le concert présenter les 29 sons sont dans l'album et toutes les 29 artistes vont se produire sur scène le 2 décembre. Ah Effectivement, c'est la suite, la suite. Mais pour l'instant, vu le contexte avec euh, la politique, c'est un peu compliqué, peut-être après les élections, oui. waaw moom kon ni ma ko waxee rek euh, suite bi moom suite logique bi mooy après concert bi ñu jéem a xool fexe nu ñuy defee defati dara ak Kaolack defati dara ak Tamba defati dara ak loolu mooy suite bi mais vu bool xoolee dëkk bi nu muy toll nii ak politique bi nu mu demee peut-être on essayer de faire ça après les élections bi après les élections voilà y suite bu yàgg léegi nga dellu si yow ci wolof euh, compilation bi wax ci bi c'est une compile boo xam ne vingt neuf titre ñoo si nekk euh, bi yoon ñëw en tant que rappeur mais damay ñëw comme en tant que producteur koo xam ne dafay defar ay musique donc lu joral leeral mooy vingt neuf morceaux yi nekk ci compilation bi yëpp man ko defar maa defar donc nag euh, mu nekk ma ma ma ma woo ci ay ndaw yoo xam ne bu ñu rabee man damay gis seen bopp si ñoom mu nekk ñoo xam ne ñëpp ay ndaanaan lañu am na si koo xam ne ren moom moo jël meilleur album moo jël meilleur lyriciste muy BMG am na si ñoo xam ne gañewul gañe gañe woon nañ ay flop donc mun naa wax ay ndaanaan kese ñoo nekk ci album bi quoi xamoon nañ la rappeur bi yoon yaa ngi ci ginnaaw. en mm-hmm. tant que producteur. Mm-hmm. beatmaker. Mm-hmm. lu bees la ci yow nan la liggéey bi demee en fait si nit ñi mais lu bees si man parce que la seule différence est que aujourd'hui beatmaker yi bu ñuy defar beat dañuy def seen signature donc bu musique bu dawee rek nga xam ne lii is moo ko dawal moo ko defar lii kii moo ko defar mais ñun suñuy époque amul woon signature yi donc am na ay hits yu bëri yi ngeen di déglu yoo xam ne man maa ko composé mais nit ñi xamuñu ne maa ko composé. donc là mu du ma ñëw bii yoon pour wane casquette boobu noonu quoi pour gën ci ñu gën a xam ne Gaston certes day rap mais Gaston aussi question. waxal. li tax ma woo kat ko su xabaar yi euh, dafa am benn compilation bu ma génnee boo xam ne dama réunir vingt neuf nouveaux talents si benn compilation boo xam ne musique yëpp mën maa ko defar donc xamoon nañ Gaston bi doon rap mais xamuñu woon gason bi doon defar musique donc bii yoon dama ñëw ci casquette